jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëw lakk Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni kon ñu ngi leen di ziare di nokkeel ñëpp ci bés bi bés bi nag li ko sabab maanaam mooy comme ni ñu ko waxee dañuy dénk ndaw ñi pour ñu tàggat leen ci siraatal mustaqim ci ndigalu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni maanaam base bi nag comme ni ñu ko waxee euh, date bi ñu ko créé 2006 la. bañ jógee gannaaw raay lañ sëñ bi yabal fi ñu ñëw pour ñu jubanti ndaw ñi léegi nag booba ba tey wax dëgg yàlla nit ñaa ngi ñëw di indi seen doom di am ci yakaar ci sëriñ bi ñun comme niñ ko waxee rek ñu fi waaye daanaka lépp sëriñ bi la ñun duñ ci lenn waaye am nañ ci am nañ ci ndam loo xam ni maanaam liñ ci ñi fi jot a ñëw ñëpp ñu ci ëpp wax dëgg yàlla ku doon jël leneen lu dul noonu muy wàllu comme niñ koy waxee di jëfandikoo sàngara wala ngay jëfandikoo tux daañ fexe ba loola dañ ci yow loolu nag bi ñun sëriñ Tuubaa la parce que fii Daaru Salaam la tudd ci bir Daaru Moxti Cheikh Modou Kara moo ko tuddee ñu fi yar ndaw ñi di de dellosi ci sa sago ba nga mën jariñ sa bopp parce que nit ki lu mu def te jariñul boppam amul njëriñ parce que li ñuy wax drogue ak leneen day yàq nit léegi nag loolu dañuy fexe wax li ci Sëriñ wax rek delloosi leen ba xam ne ëllëg daañu jariñ seen bopp jariñ seen waajur pour mën a dellu ci société bi delluwaat parce que sëñ bi day fekk foo ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faal ko ngir boromam parce que loolu mooy liggéey Serigne Touba mu dénk ko Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñu di ko jëfe ñun ñiy xane ñun ay soldaar lañu ñu ndigal ñu kiy taxaw di ko def waaw maanaam dara jafewu ci parce que boo ne yomb na wala day kii da ñun ay ndongo lañu dañuy jëfe ndigal rek comme niñ sëñ bi wax noonu la ñuy doxee ba tax na niru lu jafe waaye jafewul parce que ñun ak ñoom ñoo dëkk parce que mën naa ko bañ naa wax ba ni ñun ak ñoom ñooy fanaanandoo ñooy yeewandoo duñu leen si bàyyi benn yoon ku ci jaar foo xam ne waroo fa jaar dañ lay war rappeler la parce que ñun ay soldats lañ d'abord soldatu Zaire ñëw fii bàyyi lële sëñ bi jox ñu liggéey bi ñu mën na a tàggat ci foofu la leen di tàggatee. léegi ñu ñëw tey nag. Euh, mhm. waaw. porte vert bi maanaam day comme ku nekk dafay am sa sa doom wala sa jarbaat wala sa lu mën doon dañuy bëgg ñoom ñu xam ne ñun li ñuy def ñu ak ñoom la parce que ñun lu ñu mënti jubanteet ñun ak ñoom la ñoo ko digaale parce que ñun bu ñu defee lii ñoom dañu ñëw seet seen doom pour wax ak ñoom pour xam ne ñun li ñuy def nëbbuñu ci dara dara Serigne Touba kese la waaw. Mm-hmm. quantité yu mujj li may joxe mooy ku ci amati sa doom boo koy indee fii ba mu pare nga fexe noo ko wutalee fu mu jàpp ba mën a jàpp ci liggéey ba ndax ma day jëriñ boobu parce que nit ki boo koy indee fii ko ba baax nga seetaan ko mu delluwaat fa mu day delluwaat ci la mu def rek fi ba sa da ngay wutal ko lu mu jàpp pour ëllëg loolu daal la ñu lu ci wax fii moom daan fii moom 15 ans jëm kaw mag sax dañ ko jël pour jubante ko waaw dañ fi jël mag bu ne parce que dana mag ñoo xam da jël carol fi pour ngeen xam parce que serigne ku dëng bam dëng na rek dañ koy fexe jubanti delleesi ko rek mag mu dëngit dañ koy jubanti bam delluwaat jangal la aw ba nga wacc ki ñuy waxal ni moy oustaz bi bo xamul feru ji ñu feral ji nga jangal sa bop ba xam say français julé sa ak ni ngay jang xaside wala nga mëna a kamil lol moy suñu suñ mission ah hmm. waaw légui fi comme fi amna man nga fay def 3 mois ba 6 mois ce kilifa moy ñëw waye boo fa def 3 mois ba 6 mois dañ lay bàyyiwaat nga delu sa kër pour mën ñu may la chance kan que nit ki boko ko yoree da koy may chance yolomal ko xol ba xam li nga def ci mom deug la dem na wala jallul bu jallé nak nga baye ko bu jallul nak nga dellu siwaat ko ñu waxat ak mom bu gëna a teguwaat. jërëjëf voilà moi je me je me nomme Babacar Dioum je suis le coordinateur de de toutes les activités de ce centre. Ce centre il a été créé en 2006 par par notre guide Cheikh Ahmadou Kram Mbacké Noreyni à la suite du retour de, euh, la mission euh, d'évacuation des, eaux, de, la localité de Guinaouraï. Euh, on, a, passé là-bas 4 mois avant de finir ce travail. Bon, après la fin de cette mission, on est venu, chercher pour continuer le même travail. Parce que ce travail a, été, commencé là-bas à, à, là-bas euh, aussi, en même temps qu'on évacue les eaux, on requiert aussi euh, euh, des, des, des, personnes en difficulté qui sont vraiment marginalisées, marginalisées soit, c'est des, des ou bien des, des, des, des, fumeurs de chanvre, ou, des, drogués, aussi ceux, qui utilisent l'alcool. Donc, on, est revenu ici en 2006 pour ouvrir ces centres qui, sous l'indigal de, de, de, de, de, et, c'est cela, euh, euh, c'était pour matérialiser les voeux de son, de son père. C'est dans son de qui disait toujours que si, si, Dieu, si Dieu était garage, je serais son mécanicien. Euh, parce que je me suis investi dans cette mission pour, pour recueillir tous les gens en difficulté et les ramener dans, le, dans le droit chemin. Voilà, voilà, voilà en, synthèse l'historique et, vraiment les, motivations qui, ont mené à créer ce centre. Bon, les les les les conditions, il y a des conditions financières. Bon, bon d'abord, il faut être dans, les cas qu'on vient de, de, de, de, citer. Il faut être un justice, un drogué, en tout cas un marginal. Bon, voilà, il faut être dans ce cas. Maintenant, après, après ce cas, il y, a, les conditions financières et matérielles qui vous sont soumises. Bon, bon, après, bon, après votre aval, euh, on recueille euh, euh, la personne en difficulté pour l'internet ici. Maintenant, euh, maintenant, son séjour, ça passe comme si on a un, programme hein, d'enrôlement de, ces gens-là pour, pour, les amener à, à, à les réinsérer dans la société. Voilà, c'est en gros modo les, les, conditions pour lesquelles on, on, on peut recueillir les gens ici. Bon, la durée de séjour, minimale minimal c'est trois mois. Mais, mais comme je, je viens de le dire tantôt, c'est cas par cas. Parce qu'il euh, euh, y a des gens, euh, dans leur cas, nécessitent euh, un prolongement de séjour. Donc, c'est le processus qui est là, qui, qui, qui, qui, doit, atteindre son terme. Voilà, c'est justement cela. Mais, mais, mais, mais la durée minimale, c'est trois mois. Bon, euh, la, la, rencontre se passe comme si, dès que ça ici, bon, de, dès qu'ils sont intéressés, on évite les parents à venir de temps en temps venir les voir pour eux-mêmes s'enquérir de, l'évolution de, de, de, leur situation. bon, ce faisant, on a consacré deux jours de, visite, samedi et dimanche. deux jours de visite pour samedi et dimanche pour, pour, pour, pour, que, pour que même les parents euh, soient, soient, soient, soient, associés, soient associés à, la, à, à la prise en charge. Voilà, c'est tout ça. Voilà. Non, mais mon dernier mot, c'est j'appelle tous les parents, j'invite tous les parents à venir euh, à, à, à, à, nous rejoindre dans notre mission euh, de, de, de, de, vraiment de, de de gens à sortir de, de situations difficiles. Et, et, et, pour ce faire, bon, on les invite à, à, a venir vers nous et, s'en de, de, de, de, de euh, maa ngi tudd Abdou Sène man may jàngal xele yi fii ci base euh, xam ngeen ne base di Daaru Salaam comme ni ko ñu fi jaar waxee jarul ñu ciy jaaraat lu historique bi cosaan léegi yëpp mais ci cadre jàngale bi xam ngeen ne fu ay nit di daje rawatina ñu ñuy jubbanti. yaakaar na euh, dara du ko du fa gën a gën a yella lu dul jàngale nit ñi jàngal nit ñi xamal leen rawatina seen diine ni ñuy jaamoo yàlla ni ñuy jullee ni ñuy wooree ndax ab jullit yaakaar ni fi ñu dajee ñëpp ay jullit lañu moo taxit dafay ja ci yell ñu jàngal leen alquranul karim ku nga xamante ne jotul woon jàng moo xam as bu mu mun di tollu su duggee base balaa génn incha allah dinañu def ci moom dañuy fexe ba mu mën a demal boppam bu génnee ci wàllu lecture alxuraan mën a jàng alxuraan bu ko neexee mën a xam itam nu muy jullee ak ni muy jëflante ci wàllu diinam euh, ci maanaam ñi nga xam ne jotoon nañoo jàng am as lëf ci jàng ci xam-xam bu ñu ñëwee dañuy fexe ba jàngal leen téere yi nga xam ne dañuy jàngale ci wàllum maanaam euh, euh, fiq lu mel ni fiq mooy maanaam droit islamique ni nga xam ne noonu la ñuy toppee yàlla loolu yëpp mi ngi fi. rawatina itam téré yi nga xamné Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul comme moy suñu wasila téré yi nga xamné def ko def ko bind ngir ñukoy jàngal xale yi lu melni tasawudu sikhar lu melni nahjul qadail haaji nga xam dafay jangal ci walu éducation leen ni jàngale ci walum jaamu yàlla lu lépp dañ ko fi jàngale yemuñu ca dañuy jàngale fi ay qasida xale yi bo gisé bo déggé son bobu ngay dégg ci suuf xale yi ñoko ñoko ñoko jàng ñom ñoy daaj ñoy kurel ñoy def lépp fi nak as bu ne bu fi ñewé dinañu mëna a ko mëna jàngal ci na mu waree te du am benn jafe-jafe ci wàllu euh, njàngam loolu daal moom moo fi nekk ci wàllum njàng ak euh, njàngale euh, xam naa duñu guddal dañuy yem ak yéen fii rek incha allah bonjour bila bisimila inna wala yàllaaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni man la soxna Fatiam jërëjëf waaw waaw li ma waral sama ñëw bi tey mooy sant Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni mi nekk suñu wasi la jiitalu ñu Serigne Touba nag jiital ñu ci jiital bu wér a wér a wér jiital goo xam ne mu ci ci jëwriñ bi muy Baye Dame Thiam ànd ak moom ànd bu yàgg ànd bu sincère boo xam ne dafa dëggu ci Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni liggéeyal Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni dëppi boo xam ne man li ma ci fekkee dëppi ndar la woon ma fekke ci lu baree baree baree bari muy jaar ak ñun fu nag fu baree baree bari ba tey diwaan bi juddu tey nga xam ne xale yi mu jël teg leen fii ci boppam moo ko gën a doom yi mu sukk jur ndax lu ne la leen defal dara fekk ko ci nag du gouvernement du leneen ak leneen lu du Cheikh Modou Kara Mbacké ne ndax dafa koo bëgg bëgg koo goo xam ne bëgg goo xam ni jemelu ko muy dara même njabootam sax da leen di bàyyi ndax Cheikh Modou Kara Mbacké ak njaboot gi mu bàyyi fii sëñ bi nag ñu koy sant di ko gërëm di sant bàyyi Daam di ko gërëm di sant soxnaam su baax si mooy sama mag ji aaw buru këram bi di ko sant di ko gërëm ndax lu si ne rek mu nga ci tegu ci temps da daw ci dara nag donc lii du sens la ndax liggéey bi dafa yàgg waaw waaw gone gone yi ma gone yi li ma ciy wax ci waajur yi ndax euh, waajur yi parce nag lu si nekk rek am nañ ci part de responsabilité ndax euh, ku sa doom rek yaa ngi njëkk a xalaat base man am na ñoo xam ne indi naa leen fii boole nag commandant mi mu teg leen ci yoon yoon bu jub nag ndax gis nga li ñuy def tay ñii ci liggéey Serigne Touba la bokk ndax ku dëng rek. boo xalaatee baax boo ñëwee sa doom dina jub ci kattanu yàlla ci baaxu Seydina Mouhamed ci jërëjëf Serigne Touba ji. waaw dama fee indi sama doom ci daara ji waaye ñoo ngi sant yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba ak sëñ moodu Kara mi def daara ji ñoo ngi sant tamit commandant ak euh, aba mi fi nekk ndax daare ji ku ko gis xam ne ni ñuy redressé xale yi daare ju baax la man moo tax ma indi fi sama doom ndax ki ma fi indi am na bak plus 2. mais xam nga xale yi tey rek taxawaalu def lu leen neex mais lii moo koy dindi waaw du lépp la gouvernement mën nag waaye lii sëñ Modou karaa def ñun ñu ngi ko ci ñaanal yal na ko fi yàlla bàyyi gën a bàyyi suñu kanam te daara ji buñ ko gënoon mun a yaatal mu am fu gën a yaatu fii sax ba mun a redresser xale yi ci réew mi yëpp kon dañuy sant yàlla waaw ñu ngi koy gërëm bu baax nag di ko sant waaw bu baax bu baax ndax sama doom bi ma ko fi indi bu ma ko waxaan danaan ma man lu ma neex laay def lu ma kii laay def mais gis na tey daf ma ne yaay ma ne ko ah mu ne ma man bàyyi naa lu ma doon def yëpp bàyyi naa lu ma doon def yëpp bu ma génnee danga may ubbil quincaillerie ma liggéey comme sama jàng yàqu na ma ne ko c'est pas trop mun nañ la fayal formation nga def leneen waaw man daal daara ji moom wax dëgg yàlla deux mois kese la fi def deux mois mais man gis naa changement ci moom waaw gis naa fi it yeneen xale yoo xam ne dañ leen fee génne ñu ànd ak seen yaay di mais man ni ma leen gisee xam naa ne biñ fiy ñëw ñëwee fi noonu waaw mais gis naa changement bu baax si ñooñu ak ñii di kuréel nii yëpp fi lañ nekkoon. Euh, euh, waaw. waaw autorité yi lu ma leen di wax daal buñ munee dimbale sëñ Modou Kara utal ko fu gën a yaatu fii foo xam ne xale yi mun nañ faa nekk. di di di mu ñu changé leen bu ñu leen mënee jàngal métier ci biir sax bu ñu leen mënee wutal ay liggéey ci biir sax jar na ko jar na ko wax dëgg yàlla jar na ko man daal man bi ma ba tey damaa kontaan waaw man man Ndeye Mbéri Mbaye laa tudd Ndeye Mbéri Mbaye laa tudd